Euh, chers habitants de Mbacké, population très au développement de sa localité a pris rendez-vous avec elle-même à la date du 23 janvier 2022 pour choisir un maire qui portera la marche en avant de notre chère cité. Le monde s'est substantiellement renouvelé et le fera davantage et notre localité ne doit pas C'est pourquoi on voit aujourd'hui cette forte convergence autour de la loyauté du militaire que je suis pour supporter, pour apporter plutôt de la rigueur, de l'engagement dans le travail, notamment avec une démarche parfaitement inclusive. C'est pour cela que notre liste d'investiture repose sur une alliance de l'essentiel des forces vives de cette localité pour consolider les acquis et aller vers de l'avant. Notre ambition est d'organiser de grands changements ordonnés, maîtrisés, qui profiteront également à toutes les couches de la population. Nous voulons rompre avec ce qui a l'habitude de se passer dans cette ville. Ce changement, nous le savons, ne tombera pas du ciel. C'est pourquoi nous invitons toute la population à adhérer à notre démarche, à ne plus écouter les vendeurs d'illusions, les vendeurs de rêves, et à faire une action concertée avec nous le jour du scrutin en nous supportant. Cette priorité doit être l'affaire de tous si nous voulons le changement dans cette localité. L'équipe municipale que j'aurai euh, l'honneur de diriger, Inch'Allah, fera visiblement euh, le renforcement des relations avec la population et avec les autres forces son point focal. Euh, Théodore, Théodore Monod disait, le physicien français, l'utopie c'est simplement ce qui n'a pas été réalisé. Nous n'allons pas vers l'utopie, nous allons vers le développement de cette ville avec euh, l'engagement de tous auprès de notre équipe municipale qui comprend l'ensemble des force vives de cette localité si wolof nag damay wax ni waa Mbàkke xam ngeen ni ñu bëgg seen dëkk lañ te ñu bëgg mu gën a jëm si kanam lañu te bëgg naa incha allah nekk maire bi nga xamee ni tey mooy nekk ci kanam ànd ak équipe bu dëgër ñuy xeex ngir Mbàkke jëm ci kanam euh, xam nañ ni àdduna bi mi ngi changé mais gis nañ ne Mbacke mi ngi reculer parce que Mbacke mën nañu wax ne fanaan la woon ñun bi ñu gënee nekk ndaw tey dëkk yu ndaw yëpp dépassé nañ ko loolu moo ñu tax a engagé wu ànd nag ak ay nit yu nga xam ne ni ku xool suñu liste d'investiture xool ñu ñu àndal nga xam ne li am solo ci Mbacke mi ngi ànd ak ñun euh, li ñu bëgg daal mooy ñu organiser ay changement yu dëggu changement yu am solo changement yoo xam ne waa Mbacke yëpp dinañ gis seen bopp ci mairie bi waxoon nañ ci suñuy euh, démarche auprès des population que bëgg nañu ñu yor Mbàkke ci yorin woo xam ne ragal yàlla da koy lal bëgg nañu yor ko ci yor yorin wu nga xame ne dañuy dañuy jàkkaarloo ak dév euh, vingt unième siècle bi ñu fas yéene ci dugg suñ dëkk bañ a des ginnaaw waxoon nañ ni itam dëkk bi ni muy màggee euh, lépp luy question de développement durable war nañ ko xalaat ndax perturbation la bu nga xamee ne kenn xamul fu muy yem te lu ñëwagul dañ koy waajal loolu daal mooy tey li ñu gën a tax ñu soobu ñun ci coalition bi ñuy wax defar sa gox ñu ngi woo ñëpp nag bu bisu wote ba jotee ñu ñëw supporter seen candidat Alimar colonel Alimar ñu indi ci dëkk bi beneen doxali maa ngi leen di euh,